asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñépp di leen gërëm ci seen teewaay ci jotaay bi may jiital ci nuyoo bi président zone Monsieur yi nga xamante moo ñu fi dalal moom mi mooy président zone bi moom mooy kilifa wu aay ASC yi nekk ci zone une gannaaw loolu may rafetlu sunu teewaayu suñu doyen monsieur Sall nga xamante ni liggéeyam ci géejawaay ak rawatina ci géejawaay FC ak mouvement associative bi ñëpp xam nañ ko mu ànd ak monsieur Kébé bii di trésorier wala trésorier ah GFC may remercier aussi Albouri ak ñoom Omar mbay ñoom ñëpp di remercier ñëpp ci seen taxawaay ci bis bi sama wax nag dinaa ko tënk ci ñaar ba ñetti point bi ci njëkk mooy bu yàlla defee ba ñu mën a am possibilité tey ba mën a nekk ci position bay war a mën a gestu suñuy rakk suñuy dëkkandoo fii ci géejawaay ba mën ci def lii ñu ciy def tey président de la république Macky Sall moo ñu ko mën ndax bu lëg lekkee olom nee nañ na ko gërëmee tey te mel na ni bu ma tegee ci position bu tol noonu ba ma mën a dimbalee war a mën a may décliner ay actions envers les populations moom moo ma ko mën donc cant gi dañ ko koy delloo may ñaan ngeen delloo la ma ko bi ñu tegu mooy dëgg la naam ñun ay acteurs politiques lañ mais balaa ñuy doon ay acteurs politiques ay doomu gox bi lañ fii lañu defee lépp ñun géejawaay mënuñu fee ngand ngandalu fii fii dañ fee sol ay carax sol fee ay plastique sol fee ay short di dox ñeenti yoon aller retour cité des enseignants Limamou Laye donc fii ay doomu géejawaay rek lañ mën a nekk lépp lu ñu fi def nag on le fait par devoir par devoir d'abord balaa dara di xew dañ koy def parce que yoon la ñu def ko bu ñu duggee ci politique ànd ak président de la République ba mu mën loo ñu lii suñu wareef mooy ñu delloo ko population yi mooy ñu delloo ko suñu ñoñ te béy ci sa weewu tànk Sénégal yaatu na waaye ñun géejawaay lañ dëkk lépp lu ñuy def aussi bëgg nañ ko commencé géejawaay balaa ñuy xalaat feneen du acte boo xamante ni lu politique la mais je yi dis tantôt par devoir lañ koy def te saa yi ñu ko yàlla mën loowee incha allah dinañ ko def ba mu daj ci géejawaay yëpp loolu point la boo xamante ni dama ko bëggoon préciser donte nag le contexte et très bien situé pour que at bu nit ñi posé ñu mën ci gis politique loolu dinaa ci ñëwaat may wax leneen lii aussi mooy wàllu géejawaay FC comme ni ko Alboury waxee euh, Ibou Dieng wax ko jàpp naa ni qui peut le plus doit pouvoir le moins parce que nag effort yi ñu def si Guédiawaye c doyen bi yow nga xam ko ñi ko war ñi war a xam-xam nañ effort yooyu c'est des efforts colossaux ñu def ko te dara taxul du wut tur mais lu dul bëggal ndam dëkk bi moo tax ñu koy def mënoon nañ cee bañ a fekk bañ koy jël di ko def am na ñu ma ne samay xarit ñu ma ne bu ci dugg da ngay sonal su bopp mais damaa xam ni bu ma si duggul damay daw samay responsabilité donc yéene ji dafa sell mën na am tamit loolu moo tax yàlla wuyuñu si ci li nga xam ne ñu ngi koy def liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy ànd ak suñuy mag di ko def donc ku mën lële war naa def li ci des ku def effort yooyu war a mën a def ci lii te jàpp nañu ni li ñu bëgg ak li ñu mébét pour defal ko jeunesse bi ci wàllu football defaguñu ko soxla nañu ngeen jox ñu doole bu ñu defee fii géejawaay rawatina golf sud ay di synthétique te mën nañu ko jekk nañu loolu lu nu yomb yomb la lu yomb yomb la maanaam dafa mel ni sëgg for sëgg for mais pour loolu mën a nekk il faut qu'on abilité habilité ñu yor kàddu dëkk bi pour mën a jël defar terrain yooyu muy ay synthétique football te kenn ñu ne pourquoi kenn téye suñu loxo li ma bëgg wax foofu rek mooy ñu ngi dem ci ay élection locale te loolu mënu ma si bañ a wax man dama am ambition pour football bi fii Géejawaay te bu ma ko waxee nit ñi war nañ ko mën a gëmm aussi du lu ma créé yéen ñëpp teg ngeen seen bët. footballeurs yi ASC yi Guédiawaye FC gën a gis boppam parce que Guédiawaye pépinière la li fi nekk ci talant bëri na pour ñu gën a mën a éclore dañuy soxla ngeen jàppale ñu ñun ñu yor kàddu ñu am possibilité mën a wax pour dëkk bi ngir mën a décliner ay action teg fi ay projet yoo xam ne day jëm ci wàllu football ba bu dee bu loolu amee kenn du téye sunu loxo kenn ñu gàllankoor ñu mën ko def sunu teewaay bakken loolu bëggoon naa ko préciser waaye balaa may daaneel ci wàllu football bi purement dafa am loo xamante ni su ma ko waxee ba lu ma aussi day nekk lu may metti parce que juste bi ñuy door a jël Guédiawaye FC juste gisee nañu ak président zone yëpp waxtaan ak ñoom gën leen sensibiliser sur leur présence mais président il faut le reconnaître les ASC n'ont pas répondu à l'appel et ça c'est le lieu de le dire Guédiawaye football club du Sonacos Guédiawaye football club du douane Guédiawaye football club du yenn port Guédiawaye football club équipe populaire la te loolu dafa war a manifester wu ci stade bi il faut que ASC yi aussi jëlaat seen rôle ñu xam ni Guédiawaye ñu xam ni Géejawaay football club du club bu entreprise Géejawaay football club club waa Géejawaay yi la doomu Géejawaay yi la donc ñun ñoo war a taxaw ku ñuy recevoir fii sa fit du toog stade bi fees ñëpp ñëw góor jigéen mag ak ndaw ñëpp di ñëw stade te loolu ASC encore une fois dama leen ciy yaakaar dama leen ci yaakaar parce que ñun Géejawaay football club da ngeen may baal ma dugg de def déclinaison tuuti. Euh, euh, euh, Guédiawaye football club dafa am damay waxtaan ak benn président club mu ne ma man de sawaay man maintien laay football ma ne ko man bu ma naree football maintien may bàyyi man ñëw ma fii pour di maintien man damay gagné wala ma bàyyi ñun Guédiawaye football club ambition bi ñu am mooy déwén dañuy bëgg dem football yi coupe d'Afrique dañu bëgg a dem football yi coupe CAF moo tax ñu ngi def effort yu rëy pour recruter les meilleurs joueurs waxuma sax bu Dieng mi dama koy wax ne ko ñun wutuñu ay joueurs yu moyen de man moyen joueur bu moyen waxuma yow ñun on veut on veut pour ñu mën a yóbbu Guédiawaye fi ñu soxla te loolu du man kese du président Zala kese du président kese ñun ñëpp la ku nekk dafa am loo man loo xam ne sa morom mënu ko nga war koy ni ci table ji donc rek président damay ñaan yéen waa ASC bi aussi waa zone bi ngeen gën a jaajuwaat ngeen gën a defarwaat pour gën a mën a jàppale Guédiawaye FC parce que mooy li nga xamante ni waa Guédiawaye yëpp ko bokk à part ça waa Guédiawaye bokkuñu dara ku nekk boo xëyee da dem sa yoon mais Guédiawaye FC tout le monde s'y retrouve donc loolu dafa baax aussi ma ma ma repréciser waat ko parce que Guédiawaye FC aujourd'hui mooy ndam lii loolu bu ma ko waxee nga baal ma ngeen baal ma ma ñëwaat ci li nga xamante ni daf maa ñorte ma junjur ko léegi-léegi mooy am nañ ambition defar fi ay terrain synthétique jeunesse bi gën a mën a épanouir gën a mën a gis ci boppam ci li nga xamante ni moom la ñuy yëngu muy football. je ne peux pas concevoir benn commune bu mel ni Golf Sud amul ay terrain synthétique c'est pas possible ay football ci bayaal ak yooyu yooyu c'est révolu man yéenewu ma ko si jeune yi yéenewu ma ko samay rakk yéenewu ko ñi yëngatu sport bi te loolu lu nu yomb la yàlla def na ko président de la république mën loo nañu ko donc on demande qu'à dama koy wax parce que c'est le lieu de le dañu bëgg ngeen jox ñu mairie Golf Sud ñu def fi ay terrain synthétique gars yi di football talent yi di génn professionnel di génn di ay contrat sinon gandus bi pour éclore fi professionnel joueur bu mën football génn fii dafay jafe. terrain football yi bu ñu fi amee ñetti ñett ba ñeenti terrain synthétique pour ñu am fi ay professionnel am fi ay joueurs yu mag yoo xam ne dañuy mën investir ci sport bi fii Golf Sud dafay yomb te yàlla xam na ni defar fi ay terrain c'est très très très facile pour man yàlla moo ko dog di leen remercier encore une fois di wax ni kontaan nañu ni ñun nous sommes à disposition parce que loolu mooy suñu wareef lépp loo xamante ni mën nañu ko dinañu ko def pour la jeunesse pour le mouvement sportif lépp loo xamante ni yaakaar ngeen ni mën nañu ko aussi boo ñu ko waxee dinañ ci taxaw parce que ñun amuñu lu dul Guédiawaye amuñu lu dul Golf Sud maa ngi leen di gërëm di leen sant encore une fois di leen wax ni kontaan naa di remercier aussi presse bi nga xamante ni ñëw nañu ak doole maa ngi leen di gërëm di leen remercier ci seen taxawaay ak ñoom faale ak ñoom ñëpp vraiment di lañ wax ni kontaan nañu jërëjëf.